mi ngi nii di wérd ci sama wet comme dafa euh, ba ma koy jël première émission dafa wanoon ne am na leneen mënoon na ko mais loolu da ko bàyyi gaay léegi nag clients yi ci boppam di ko wan ne ko bëgg nañ lii bëgg nañ lii mu dem ba waral mu boole ko ci liggéeyam carrément muy wàllum faj ñaan ak produit bii rek yëpp lañu dugg ci biir bu baax a baax a baax Cheikh borom produit yaa ngi ci Tektal TV sa télé émission Tektal sa émission looy nuyoog àdduna wërngal képp bi lay seetaan ak sa melokaan bu bees bi takk am maxtum yor kurus yor beneen facette daal naka mu waaw Cheikh maa ngi lay nuyu di wax salaamaaleykum ñiy seetaan di nuyu képp koo xamante ne nii yaa ngi seetaan Tektal TV di nuyu sa bi nga àndal di nuyu képp ki nga xamante ne nii mi ngi may bëgge wala képp ki nga xamante ni ñi ngi doon jëflante wala ñu yàgg jëflante macha allah moo xam ci ay produits wala feebar yi nga feebar wala ci leneen ak leneen hmm. macha allah xëy na doo fàtte Hmm. parce que émission bi njëkk a def. waaw mat na ñaari at wala ak lu teg daal yaakaar na ñetti waaw wala ñetti at. Hmm, hmm. macha allah comme ni nga ci wax nii rek. xëy na ma la daan wax ne seex mën naa lii. xam-xamu bind ak maas. waaye ñëwaguma si. ñëwaguma si waaye xëy na boobu nit ki maanaam tekki tekki rek dafa baax. xëy na su ma si nekkee rek war naa see nekk te mën naa si jox euh, firnde yu bari. benn bi clients yi ñoo lay woo nangam ak nangam yaakaar nga jaay leen produit wala nga feebar ñu feebar nga faj leen ñu gis résultat ba dañ daan feebar feebar yu bari dem fu nekk sëriñ yu bari ne leen garab duñ gis wala ñenn yónnee seen xaalis duñ jot dara mm. xam nga yàlla dimbale ñu seetaan ñu fu mu manti doon macha allah ba émission yi defee defee Dubaay it mm. ñu gis ñu ñu jëflante ñoom ci ay garab macha mm. allah xam nga ñu gis ay résultat ñenn ñi di ñu dis seen yeneen soxloo xamante ni maanaam si wàllu ñaan la Mm. macha allah daal waaye xam nga moo tax xay na nag léegi nag affaire bi dafa gën a gën a gën a kii moo tax ma ma ma ma fipp mën naa wax. Mm. parce que affaire ñun xam nga euh, ñoddiwuñ dara. Mm. dafa jot rek moo tax. te te ay taalibe kese lañ. donte am nañ xam-xam. donte it puukare ci ndamu wuñ ci te luñ la wax xam-xam la. yoruma nag ay jinne comme li ma <laughs> di wax waaye ku ma jëflanteel nga foog ni man jinne laa. jinne loolu macha allah donte xale bu ndaw lañ. waaye Euh, ku ne sa wàllu bopp am nga lu la yàlla may mm. yàlla may nañu xam-xamu sunguf mm. ak ñiy feebar di fajook wàllum produit ak yooyu mm. waaye terewul am na beneen xam-xam bu ñu may loolu nag léegi moo yeewu mooy donte xam nga léegi fii bërëb bu bees la macha donte amoon nañ ko at waaye daawuñ fi nekk pour suñuy beneen sant yàlla sant xam nga ah. <laughs> xam-xam moo wóor Mhm. Euh, man dama bëgg lu baax. Mhm, boo amee xam-xam da ngay bëgg lu baax bëgg lu mhm. rafet. nit ki sooy wax dëgg xam nga day feeñ sa kanam sooy wax dëgg te yàlla tax nit ñi dañuy xam. xam nga dëgg la nag nit ki moom man nga wax ba convaincre doomu aadama it ñu ñëw jëflante duñ gis résultat wala ñu envoyé seen xaalis tamit doo leen envoyé dërëm. dootuñ la sax jot. ñun nag tappale yooyu gars yi nekk nekkuñu si. xale bu ndaw lañ amul fenn fu ma rus a teg sama tànk mhm. te su may génn man sama oto rek laa jël génn su ma neexee nag ànd ak nit ñu may liggéeyal ñenn ñi xam damay liggéey ak ñoom mhm. macha allah ñu may jàppale sama liggéey si wàllum produit ak yooyu mhm. macha allah daal waaye ñun amuñu fee sens sens interdit daal comme ni nga faral di waxee yàlla mooy may xam-xam te si hmm. ku nekk la ko mën a jox moo xam xale xamul mag xoolu xoolu góor xoolu jigéen xoolu tamit ak aw sant hmm. xam-xam amul sant wala hmm. sama maam da daan faj wala sama maam da daan da daan da daan def nangam ak nangam borom xam-xam la woon yow a nekk borom xam-xam affaire bi lu la yàlla may la ak nga gëstu ko macha allah teg ko waaw mi ngi noonu daal Mm. te yàlla may nañu si kuñ jëflanteel da ngay foog ni jinne laa mm. xam nga sant yàlla daal xam-xam rek moo wóor wallahi lazim xam-xam moo wóor moo tax yàlla ñu futtiku léegi mm. xam nga di ñaanal gaay yi yu bokkut ak produit yi ak sunguf te sant yàlla xëy na bu ñu demee ba si biir daal dinañ gën a leeralu si bari incha allahu rabbi jeex na kon borom produit yu baax yi ñu wax sëñ seex wala sëñ seex konte wala produit borom boo ci wax rek ñii seex solution ñii seex borom sunguf yi ñii seex produit ñi xam nga ku nekk ñi seex yokk xam nga yokk awra xam nga comme macha allah bu si bu si waaye rek wax rek amul euh, problème li may neex ci mm-hmm. say mbir à mm-hmm. chaque fois xam nit ñi mm-hmm. am na tappale gu am ci sëriñ si mais moom di nga gis que ne bu sutura weesoo dina la indil euh, benn témoignage indil la kii nga gis ne kii de weer sàngam lan xamante mu ñëwaat mu da indi la il y a six mois nga gisaat dialogue bu mujj bi am na loo xam ne que nit lu mu mën a tappale tappale ay montage moom jot googu rek wuti xaalis gën a yomb. ku mhm. kon dëgg lay doon euh, fu mu jaar ak yi. Mhm. te nag wax dëgg yàlla ku xam ba mu jógee yàgg na mi ngi jëm kanam te kenn plainte ko. Mhm. kenn indi lu koy problème loolu day na euh, résultat am na sëriñ soo xam ne que sañu ñoo dox ñoom kese. am na sëriñ soo xam ne seen téléphone sa sañ ñu ko normal. am na sëriñ soo xam ne que wàcc nañ deuxième division. comprends nga euh, ay pexe ku ci nekkul rek man damay kontaan ci yow. parce que moo tax nit lu ma mën di wax ma ne ah Cheikh daal wax dëgg yàlla ku bëgg ndam la mhm. te ku ragal defet la te loolu seede boobu bu ma seetlu la mhm. te yàlla tax mhm. kon yàlla na ndam yi gën a yokk defet sori la bañ laa jege xewal gi saawaan baawaan ba lu baax gën la yomb bu baax a baax ngay am immeuble ak ay fu ne daal insha allah ba ñuy dem ay maison blanche di États-Unis defee émission insha allah bu soobee yàlla dina barkeel bindal numéro Cheikh borom produit yu baax yi bii nag boo gisee mu joxe benn numéro li mu ci jublu pour nga mën ko jot direct man wax ko sa soxla bu baax a baax a baax a baax dafa 78 397 65 93 78 397 65 93 70 78 397 3 ak 9 ak 7 la pour ku déggul daaj 65 ku dégg daaj ak ku déggul daaj mën na ko bind 93 3 9 la ak 3 pour ku déggul daaj Cheikh borom produit yu baax numéro bi am na WhatsApp da nga koo jot appel normal tamit bu baax sëñ mhm. léegi dañ gis ne wàllum seet. yow da nga cee sawar lool. ne mën nga ko. te sëriñ si tamit. am ñoo xam ne que seet mooy saaru éliminatoire sëriñ. maanaam ki nga seetal boo ko waxul lu leer. loo mën a mën a ñaan lu cëpp da nga koy ñàkk. te am na seet yoo xam ne comme sëriñ si dañ koy def man mii dul sëriñ. te duma ko jéem a mas a doon. bu ma fi vaar di fekk xam na parce que. Mhm. faj ak ñaan bu ci ay milliards di génne du ma doonub sëriñ. Mhm. ndax mënu ko. Mhm. li ma man mooy ku man dara ma feesal la. loolu laa bëgg nit ñi xam ne njëriñ a nga fee ngeen jël si ko ñu dem ca fekki léegi nag man gis naa sëriñ soo xam ne que bu ni seet. danaan la yaa ngi yaakaar muy tas. amul ku dul yaakaar da du tas. danaan yaa ngi ciy mbir. ku bëgg dara di nga nekk ci mbir. dina ne ku ñuul kii ku gàtt kii ku lii dama yaa ngi jàpp yoon saa yi war a dem boutique bi sax jàpp yoon. Euh, bu dee jigéen la ñu ne ko sa noonu yi jigéen la jigéen ñu bari seen i problème seen morom jigéen la ni doon. Mm-hmm. bu dee góor la ñu ne ko yow jigéen ñi ñoo la gën a bëgg. est-ce que comprendre dafa am seet goo xam ne yow loolu man mii bu ma kii tuuti dinaa ko mën a wax. Mm-hmm. bari na ci yow de ah ñi kii ñu tiital ko ne ko doon laa liggéey kii ñu ne ko yow sa yaram amul liggéey mais cat la rek est-ce que comprendre ki kenn mm-hmm. mënu laa liggéey ba mu jàpp maanaam xeet boo xam ne yow boo xoolee sa bopp sax di nga ko xam. ma bëgg xam nag sa degré seet nan la ak boo paree ci seet ak listixaar lan mooy différence bi. Mhm. ak xeetu biddiw xam-xam xaw ram ram lu yooyu yëpp nga dugal mhm. ñu mhm. ñu xam ne seex mii wàll bi domaine waaw seex. xëy na su ma doon joxe ay témoignage si ñi ma seetal par vocal di ko dugal sama Instagram comme ni may jaayee nit wala ñu may faje ay nit. si seeni garab mu xam ma ci paas sax moom boo xam nga waaw. <laughs> allahu akbar seex xëy na internet bi. ñi génn bari na lool. moo xam sëriñ nangam wala nangam ak nangam. wala mm. nga yor ay jinne ni ko gars yi di waxee. Mm. xam-xam nekkul foofu. gis nga. nekkul ci ñàng kii yëpp nekkul ci ñàng nekkul sama maam da daan faj nekkul sama maam wàllu yu la woon nekkul foofu sa maam la mu doon moom la. moom la du yow. Mm-hmm. xam-xam yàlla da koy maye ak la nga gëstu ñun yàlla may nañu bu baax si sunguf ak ren si produit ñu composé yoo xamante ni mosuñ dem benn pays di ko jàng. di ko jàng te Sénégal gii mosuma koo jékki di jàngi jàng xam-xam. leneen da si des yëpp fii lañ ñu ko yàlla dimbalee yenn ñu gëstu ko ba am lu leer te wér te wóor hmm. waaw yoruma nag ay jinne waaye ku ma ku ma nga foog ni man jinne laa wala leneen laa masha wax dëgg yàlla loolu moom preuve yi moom mën naa la génneel xaajul jeexul si seet nga ne ma nii laa tudd léegi ma adat sa tur léegi adat lu gaay lu lu lu tëgaay yenn sëriñ euh. nga adat sa tur bind sax yenn sëriñ sax mënuñ sax ñenn ñi sax mënuñ sax bind turu doomu aadama mu jub. mu jub wallaahi la ak yu bëree bëri su nekk. Mm. buñ toogee si tale bi nga foog ne yee eh, kii moom macha allah. fekk xay na xam-xam bi nekkul ci rëy rëy lu. nekkul ci ay jinne nekkul si ay wax yu rëy nekkul foofu. Mm-hmm. affaire bi yàlla moo koy maye nga gëstu nga jàng taxi nga ragal yàlla di wax dëgg. di wax dëgg di lekk wallaahi boo ci nekkee barki Seydina Muhammad koo jëflanteel yàlla teg ci loxo. yàlla teg ci loxo amul sax ma dem te ñëw. Mm-hmm. ak def dëgg. beneen bi. Euh, yaa ngi doon laaj affaire seet ak. ni ñi naa ay seet xoo ay yoon bi ngay jàpp ak. yooyu yëpp dëgg la seet dafa bëri ay façon mais am na yoo xamante ne ni ay làmbatu la rek la. Hmm. xam am na yoo xamante ni boo xamul dara. Hmm. bu la nit woowee kat nga tànn am ñoo xamante ni barke Seydina Mohamed ay ponk lañ. Hmm. bu la leen woo naa la nii rek seen xel lu nekk rek la wax. mën na tombé wax dëgg wax la dëgg bi mu am mais boo jëflanteeg moom nga leen di weddi. nga leen di weddi xam-xam dafa am yoon. Hmm. wallaay man nit ki su ma woowee man seet du ma ci fayeeku kenn. pour le moment dama koy wax lu bari. non du ma sonal da nga may woo léegi nga ne ma noo tudd ma wax la ma laaj sa tur noo tudd nga wax ma nangam ak nangam bàcc Jóob wala Faatu nangam wala nangam ak nangam. Mm. maral sa tur xam li nekk si yow xam raw xaan bi. Mm. xam raw xaan bi gis nga nit. Mm. nit ku nekk boo juddoo sa papa daf la tuddee tur. ak wu sant. tur boobu moom ngay wuyoo. boo tuddee instant Moustapha nga génn si tu si si mbedd. am ku ne la Moustapha yee da ngay geesu. da ngay parce que xam allahu akbar eh? xam nga raw xaan. Mm-hmm. bu fekkee danga nga tudd Moustapha nga génn am ku ne la seexee doo wuyu. parce que sa tur nga parce que nit ñi su la mën a liggéey sa tur la jaar. sa tur la jaar ak sa tur yaay sax des fois. Mm. comprendre nga pour mu gën a jàpp ak yooyu. Mm. moo tax nit ki pour nga xam saraxam wala nga man koo euh, seetal. Mm. pour mën koo gis. turam dëggantaan la la jox. turam dëggantaan. pour nga mën a xam rawxaan yi nekk ci moom moo tax ñu ku ku woo mm. dañu bëgg boo ñu jotee nag laa xanaa nag nga insisté des fois mënu ñu chaque jour tamit mën nga ñu woo léegi ba ñoo jot parce que des dañu occupé mm. wallahi lancim damay seetal ni des fois barke Seydina appel bi mu am ci appel bi une heure de temps mën naa jox preuve wallahi lancim mm. barke alquranu karim waa ji envoyé dama léegi nii man damay bëgg luy leer pour ma génne am na ñeneen ñoo xamante ne ñi ngi bitim réew tamit barke Seydina Muhammad mm-hmm. wallaay lansam du caaxaan mm-hmm. ma wax leen si seet loo xamante ne war nañ ay sëriñ mosuñoo am lu mel noonu te jëluma temps bu bari si ñenn ñi quoi bu fekkee mm-hmm. vocal la quoi damay aral sa tur wala nga woo ma léegi mais ñenn ñi des fois da nga leen di woo tel nga wax leen lu nekk dëgg mais ndeysaan dañu xam ne kii li ma wax nit mosuma ko wax te xamuma mosumaa gis xamul ku ma xam mu wax ma lii kii daal xam nga macha allah ñu bari démb rek ndeysaan wax ma la wax ni dama xaalis wallaay lancim Euh, mu ne ma euh, yaay sama sëriñ ma ne ko man saa du ma sab sëriñ nañ jàppante ak Gambien la nag mi ngi nekk ba Hollande ma ne ko ay broda lañ rek mm-hmm. Mm-hmm. xam naa yaa am mag wala yooyu nañ jàppante ay broda rek wala lazim xam nga waaye ma ne ko man teguma fu ma àggul sama fu mu bopp ab taalibe laa jaayi lu ma amut nekku mob sëriñ waaw fajkatu nag aajo laa mm. wax dëgg yàlla barke sëñ naa ma xam mi ma envoyé xaalis moom laa la bëgg a wan nii waaye mm. xëy loolu du preuve wala yooyu ñun moom preuve moom preuve preuve preuve preuve moom mooy kii mi ngi nii mhm. Saliou Gueye la tudd Saliou Gueye waaw mi ngi nii mhm. xewal gaa ngi nii Cheikh Konté la ko def moo nekk nii si turu Ria la beneen bi man dañ mhm. maa bloqué Ria ak MoneyGram parce que dañ ah, ma envoyé xaalis macha allah uh-huh. ba sama tour ñu bloqué ko foofu. ñu bloqué ko parce que ah, système la parce que tubaab bu ñu envoyé lu bari xam nga rek macha allah Ria rek ñu mën a envoyé ak Wave ak Orange Money wala soit ma jël sama tour kenn ku may liggéeyal. ma jox la nga ko Western hmm. Union bu nekk Suède taxi. ma ne ko sa soxna si. Ah. ku am wërsëg la lool mais ku naqari deret la. parce que alxuraan turam la ma jox ma adat ko. xale yi dañ ñëw lool si ah. tableau bi xam nga xam-xam dafa wérte wóor xam nga gis nga nit ki la hmm. am na loo xam boo ko mënee wala lansin du metti waaye nag nit ñi nag ñi xamul dara hmm. ak ñi xam dara mën nañoo génnandoo fenn hmm. nga foog ni ñëpp ñoo yem wala ni am na tey am na kenn commencé na beneen Gambien bu nekk euh, Angleterre uh-huh. ak ñeneen ñu bari sax mais kii tay la moom tamit wala lansin mu ne ma seet ba ma dalee ñaan ba léegi ëpp na sept ans li ma fay si sëriñ tabax na kër barke Seydina Muhammad duy caaxaan dama koo seetal wax li nekk si moom mm-hmm. mu waaru xam nga ñun ay doomu aadama lañ ah. xam-xam lañ yor rek mm-hmm. macha allah te ay doomu aadama lañ xam nga mm-hmm. affaire yi fii lay nekk fii lay nekk foo mënti dem danga ko yóbbaale nga mën a seet ni yàlla def ci barke ginnaaw bu weesoo seetu nit comme kun sàccoon muy seetlu ba xam Mhm. dina jàpp sàcc bi wala dina feeñ wala yooyu mën nga ci dara seet. loolu am na tegtalit. tegtal moo tax si njëlbeen ma ne seet dafa bëri façon. am naa gën a seet goo bu fekkoon <laughs> mhm. am na beneen gàmmee bu nekk Amérique ku tudd eh? Babacar Seck. Mhm. man bugguma des fois di wax. ay affaire di jox ay turu doomu aadama. am na ñoo xam ne loolu garaawul ñu ma am. wallaay lazim ba ay nag yu mu doon jëflanteeg euh, kii nijaayam. nijaay ji xam nga problème mu jàmbur sax bëgg ma dugg si xuus ak yooyu xam nga. waaye pour maa ko am nga loo xamante daaba daaba daaba moo loo xamante ni euh, ay euh, ñeenti tànk la mais animal lay nekk. lu réer. Cheikh hmm. <laughs> nañ jàll foofu bëgguma. wallahi naa si wallahi sant yàlla Cheikh wallahi wallahi loolu li ma bëgg ko kon kun sàccoon mu bëgg mu feeñ. mu feeñ loolu am na tegtal nga boo defee lii. Hmm. mën na feeñ. mën na feeñ waaw loolu am na tegtal parce que seet dafa bëri façon. Hmm. man seet bi ma lay seetal nit ki. maanaam mën naa dem ba tudd non man ah ma loolu. Ah, wax dëgg yàlla comme diwa ko jël quoi. man xaw loolu. ah yow da ngay fexe ma loolu xaw ma ay diwa ko jël wala ku ñuul kekk ku weex. Mhm. en tout cas nit ki su ma woowee. Mhm. damaa bëgg a seet. ma wax seet dafa bëri façon. Mhm. man xel mu nujum laay seetee. seetu raw xaan la. aussi xel mu nujum dafa bëri ay pàcc. dafa yaatu. dafa yaatu man raw xaan lu ma la wax du denc ci yow. da nga koy dund nii. moo xamoon ngay feebar mënoo jóg su ma la seetalee aw sa turu yaay. Hmm. xam la na ma wax la sa sarax jox la ay bagage nga utiliser ko feebar ba tàqali ko yow. am na ñu bari ñoo xamante ne nii maanaam seex <laughs> euh, seet ak sarax dafa am solo. nit ki hmm. nag boo mënul adat tur. Hmm. adat boo ko mënul. xam chiffre bu nekk lu muy jàpp. ci arab lii nangam lii nangam boole lii boole lee. loolu boo ko mënul seex dina jafe loolu nga ñaanal nit mu jàpp. dina jàpp wallaahi la xasim. Uh-huh. barke alxuraan du caaxaan. seex boo ko adatee ñaata la. seex xaaral. Euh, cheikh euh, Chine gi mille lay jàpp. yaa ngi dix. Mm. six cent. Mm. waaw cheikh mille six cent dix la. Mm. bu fekkee sant bi nga siy boole. nga siy boole sant Diop Diop euh, jiim la. ak waa waaw gi six la baa gi deux. waaw jiim trois la waaw six baa deux. waaw bu fekkee dama bëgg xam lu nekk si yow man maa si yokk sama secret. ci ma am lu mu xamal ma kii raw xaanam lii la lii la. Mhm. seex dama sopp man damay toog des fois si télé. di adab yu bëri. allahu akbar eh, da ngay toog ci di seetaan rek di lijjanti biir seex dañu mën seet dañu allahu akbar. Mhm. wallahi duy caaxaan seex wallahi lazim sama commencement am na lu ñu man waaye dafa kii wutoon mhm. dañoo yëg ni léegi yëngu na. barke Seydina Mohamed du caaxaan wallaay du question da ngay jaay sa bopp wala du mm. question da ngay nàngam mm. waaye lu ma yëg la te ñu ngi koy gis nice macha allah damay toog si télé bi des fois gis turu jàmbur wala nii mara tur bi dama sob ma xam ni nekk si moom nga gis des fois nit ki nekk si jafe-jafe mu xam nga xam kii bu xamoon xam rek am mm. ñaan yi mu ko boole rek yàlla daf koy tijji sarax gis nga dafa am raw uh, rawxaan dafa am lu koy décanté lu koy décanté mooy sarax bi ak ñaan yu am doole ñu ciy def. Mm. moom mooy décan décanté raw boo kale woon amoon dara ba amatoo wala nangam ak nangam nga kale mm. kale dafa bëri façon. Mm-hmm. am na ñoo xamante rab moo leen di kale am na ñoo xamante liggéey moo leen ni cat moo kale am na ñoo xamante leneen leneen ak leneen leneen ak leneen mm. dafa bëri. macha allah mais nit ki fii ak seetu adat. xam xelmul nujum. xam xelmul xuruuf. Mm-hmm. ak leneen ak leneen. sëñ bi demal nga jàngiwaat. demal nga jàngiwaat wallaahi la nga seen du léegi xool télé di du xool turu jàmbur waaye politique yi xool nga ba xool ëllëg ku ci war a doon président bu Sénégal wala. non bokkul ak loolu. Ah, maanaam du question comme ay yow président nga war a doon. maanaam boo jëlee nit exemple turu exemple boo jëlee Macky Sall. Hmm. ma adat ko ah. yokk li ma si yokk miim la. Hmm. keef yaa. Hmm. Sall soit. alif laam. ma yokk li ma si yokk euh, mu jox ma. sans nangam. sans nangam ku siiw lool. ku mm. naqari deret teg si. waaye ku fonk kàddoom waaye lu mu commencé du ko àggali ci lu bëree bari lu mu commencé du ko àggali barki Seydina Mohamed. loolu raw xaan ki la wax lii ak ku manti doon. <laughs> waaw Cheikh gars yi xamuñu dara barki yàlla gars yi xamuñu dara billaay di caaxaan moom. moom yi nga wax moom seetlu leen ko ci moom moom moom. <laughs> xam nga lii sax xëy na mën nga ne peut-être kii dafa siiw moo tax nga xam ko léegi turam Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. waaw Ousmane Ayin. waaw Seen gi xam nga Sonko da yaakaar ni Sine la. Sine safurla euh, euh, Ousmane. Ousmane du yaakaar ni Sine trois cent onze. onze loolu Cheikh yi dañoo jàngut xamuñu. du question am na ñu bari ñu xam nag. macha allah ma si suivre ma xam ne kii aay na. mais lii xam-xam na duy tappale. Mm. Ousmane Sonko boo ko bëggoon a xam rawaxaanam ayin soixante dix. Euh, Sine cinq cent ngay jël onze. Mm-hmm. Mim quarante. Mm-hmm. Man nun nun mm-hmm. cinquante. Sonko Sine. Euh, ak li ma koy kii xam nga ay code la ngay kii yooyu waaw mm-hmm. xam nga mooy loolu mm-hmm. moo tax léegi Ousmane Sonko lu muy indi la de wërsëg barke alquranu karim barke waaye day bari lool lu muy commencé waaye du àgg du àgg du ah, question xam nga dafa siiw bokkul de ah. dañu xam nga nit waaw kay ah. nit ki mm-hmm. maanaam doom aadama exemple man nga oto bu mel nii exemple nga am oto RAV4 wala nga am oto Mercedes. nga même oto lay nekk. même oto lay nekk mais euh, numéro bi du doon benn. foofu naa leen leeral nag sama Mercedes bi kenn jënd ko de maa ko jëndal sama bopp nag. Mhm. tudd na Mercedes dégg ngeen ko. comme loolu fi wax dañu jënd sama oto rek du dëgg. loolu day am ci doomu aadama. Mhm. nit mën nga nuróoleeg lii. Mhm. des fois am nit ñoo xam ne mën nañu nuróoleeg nit sarax. nuróoleeg nit sarax. mais léegi mais Touré Touré du doon benn. ok léegi yow ni nga xoolee Ousmane Sonko. ba tëdd ne nii la mel. lum tàmbali lum kii du yegg. ak yu mel noonu te par exemple képp ku tudd ci Ousmane Sonko ci àdduna bi rek day valable pour li nga wax nii wala Ousmane Sonko bi politique rek lay doon Sonko bi li exemple ku tudd faatu Ndiaye. waaw faatu kamara Camara. Mhm. raw xaan bi nekk ci Fatou Camara ma nekk ba Kirikoro. waaw Camara ma nekk ba Dakar wala ba nekk ba nangam ak nangam ñooy bokk même rawxaan. li muy naqari deret exemple bu dee Fatou Camara da jox xaaral ma xool xam nga rek xëy na temps lay jël wala yooyu. du jël temps mais Fatou Camara ma ma adat Fatou. Mm-hmm. Camara Camara keef la. Mm-hmm. miim ak raa Tektal TV mi ci YouTube bi ah. bés furus bés cloche Fatou nangam bëgguma parce que da nga bëgg yéen sëriñ ba nag bañ a eh? capté ak yooyu. xam nga Fatou Camara naqari deret moom day génn ci moom. Mm. raw xaana naqari deret mais ku fonk kàddoom. beneen biit nit wër sa pire chiffre bu baax lool wàllu mm. muxtaar chiffre bu mm. kawe kawe. moo tax des fois da ngay gis yenn sëriñ yi wala yenn jigéen ñi pour balaa ñoo sëy wala xeet yooyu. wala ñu ngi si yenn bërëb yi nga gis fa koo xamante ne ma ngi bu war turam faa nga fekk fa chiffre 5 des fois mm. du ñëpp nag parce am ñoo xam balaa ba xam ba pare xam nga wala xam nga xëy na xam mm. Mm. nga naqari deret da lay yomb ñu tudd Fatou Camara nañ xool loolu xam nga lii Cheikh raw xaanu nit yi ak bi nekk Real du ñoom ñaar ñëpp kon ñooy. ñooy boo jëloon turu Sadio Mané. Sadio Mané waaw. turam boo fa dafa amee rab bu fa nekk. dafa rab bu fa nekk. barki Seydina Mohamed du mhm. caaxaan. wallaay la mën na ko jural yéex a am jabar. Sadio Mané dégg nga yéex am jabar mën na koo jural yéex a am jabar. wala mu ñàkk njaboot wala du ko gaaw a bari leen. du ko gaaw a bari Sadio Mané. Sadio Mané. waaw leneen li nag ay code la. léegi bu nag bu ñëwoon takkandoo ñeent xëy na ça dépend na mu fay dugg rek. aussi tamit takk jabar tamit dafa am loo koy xoole man nga bëgg a takk jabar nga dem takk ko la neex des fois moo tax ngay gis sëy yoo. xamante ne mais léegi Sadio Mané ko doon jox ko takk mais balaa mu ko takk na xool diggante ba ñoom ñaar ba xam baax na wala baaxut parce jabar tey balaa moo mat ñaari weer mu tas. Mm. wala nga takk jabar ay xuloo rek ngay dëkkee ak moom. Mm. wala nga takk jabar balaa moo yàgg nga dee ba ko fi mm. xam nga et cetera et cetera cetera hmm. nit ki gis nga yàlla léppam chiffre la léppam chiffre nga xam ko ak nga ñàkk koo xam hmm. doomu aadama yàlla bindoo ko si àdduna nii rek muy dox am na rôle bu mu fay jouer daal comme bu baax parce que léeg-léeg da ngay gis ci bi ñu jékki-jékki ñu ne ndey saan kii bi mu marié yàggul après euh, gaañu na nangam xeet yu mel noonu bu ko hmm. defee fii Sénégal na ni ñaawee bu dee ku góor ka moo gaañu ku jigéen ka la ni gaafal bu dee ku jigéen ka moo gaañu ku góor ka la ni gaafal yu mel noonu comme déjà bu nit ki takkee jabar loolu tamit dafa laaj ay sarax wala ay ñaan bu dee dafa duggee. loolu waaw nit maanaam bu fekkee da nga bëgg a dugg si sëy. waaw nag mën nga dem fenn ñu xool la ñu ne baax na nga dem fenn ñu ne baaxut. am na ñu mën a seet lool mais xëy na hmm. ñu aay ñu aay ñëpp ñoo dajaloo yow da dem rek. moo tax foofu tamit sëriñ si bàyyi bi leen fi engagement de. Hmm. nit ki di loolu toll ne takk soxna wala dugg lii nga. nelaw hmm. ba yeewu rek ne ko ah, baax na de. am na ku ma si am na ku ma si xool ku nekk Mauritanie. xaw ma ko man dem dama la jox preuve ngay xool man hmm. gaw ma ay xam nga sama téléphone bi xam nga ndax ma si sax man seet fayeeku ma si kenn hmm. ñi ngi sant yàlla xam nga Mauritanie la tudd sànq hmm. maay wax ak moom mii daf ma 19 heures 3 la ma envoyé message ma tontu ko 19 20 heures 32 ma xoolal ko turam wax li nekk ci moom lii la ma tontu bàyyi ci jàmm wallaahi li nga wax ni yëpp dëgg la moom mu ngi tudd Baba Jaxate waaw. après moom dama xool turam raw xaanam la lan ak lan lay nangam ak nangam. di hmm. expliquer moom ay mbiru boppam. ba pare mu may wax ku mu la yooyu moom laa ne ko kooku baaxul. kooku baaxul. wallaay la nga si baaxul Mauritanien la. après nit ki nag des fois ci côté boobu mën ngaa sa xol ngay am naa ci am na koo xamante ni sax nga rek moom ngeen di ñëw ma doon woo góor la. nekk ba àll. Eh. benn jigéen bu ma doon xool la ne ko soxna si boo bëggee dégg-dégg baaxul. moom ah. si boppam dafa amee rab ba pare dafa nangam ak nangam. mu ne ma loolu wallaay xam naa ko ci moom waaye des fois nit ñi seen mbëggeel moo leen yóbbu foo xamante ni mooy loolu affaire boo ko mënee seex du metti wallaay du metti xam-xam ah, rek moo wóor xam nga mooy loolu sëñ Seex léegi ku ku jël yoonu kaso mhm. bëgg bañ a dem mhm. ak ku dugg kaso bëgg fa génn ay mbokk bëgg mu génn loolu mhm. loo ci mën ku bu fekkee dañ la convoqué kuñ convoqué waaw kuñ convoqué loolu dama lay may xam-xam bi gratuite gratuite kuy dem kaso wuy ji kaso wala muy wuy ji convocation lu mu manti doon jëlal bant sump. bantu sump. wala soccub sump rek. wala soccub sump lu bokk sump. waaw nga bind laa yanti xuuna. laa yanti xuuna. kese. kese nga sa buntu kër bu fekkee suuf la si kii bi nii waaw nga bind laa yanti xuuna ak bant bi kese doo ko bind sa ko bant bi nga jéggi. ok boo ko jéegee nga dem wuy ji jàmm rek mooy mujj. jàmm rek mooy mujj barke Seydina Muhammad wallahi lazim jeex na kon dégg ko. laa yanti xuuna Hmm. Ah, mais nag bant sump nga koy jën nga koy nga koy binde nga koy binde ah. au lieu nga binde ko sa baaraam ci ni nga koy binde ah, laa yent loolu moom pour loolu la bu ma kenn laaj nag léegi kenn bind comme ni nga koy binde alxuraan mu bind ko français nag kooku laa yent xoona bi hmm, du valable du valable du valable dégg nga waaw kon laa yent xoona ni nga koy bindee ci alxuraan noonu nga koy bindee bu baax a baax a baax hmm. léegi ku fa nekk nag bëgg a génn ku fa nekk bëgg a génn am na ay loo xamante ni si du ma loolu du alxuraan laa koy kiyee dafa am ay si garabu wolof yi si uh-huh. garab yi sox si ah, ah, kii yeeg yooyu laa am lu ñu jël def lii nangam nangam hmm. kooku utiliser ko fa waaw bu bu xasee ba mu lekk moom bu hmm. sob yàlla du ko fa demee duus waaye nag pour mu lekk xëy na mooy jafeek yooyu hmm. waaw loolu moom tamit am na si macha allah daal wax dëgg yàlla ku bëgg bayra bu saf sàpp nag nga xam ne que nit ñi dañ koy coow ci jàmm ak salaam pas bayra bi nga xam ne que nit ki day defi toj toj pour ñuy wax ci moom te nit ñi dañuy jaawale leen nag mhm. siiw am bayra bokkul de mhm. am na ñooñu siiw na lool mais amuñu bayra am ñooñu am na bayra te siiwuñu mhm. ci média beeg yu mel noonu ay mbir la ko quoi mais bayra bu saf-sap ku ko bëgg nu muy def bayra nit ak après bayra njaay cheikh bayra nit li may faral di wax rek gis nga nit ki des fois bayra bayra bayra nga bayra balaa moo neex ngay mos ngay mos waaw nit ki bayre bayre te diw a diw diw diw te diw maa xam nga da fi dégg lu bari daanaka soo bis bi nit ñi moom da ngay dégg ay tur nangam ndeysaan la yàlla xam doy na hmm. wallaay am na ñu tudd lool ci soo bis hmm, hmm, billaahi wallahi wa taala boo leen yewate leen cent mille laa soxla ko faj eh, waaye seen tur seen tur moo leen àgg fa xamante nii xam nga rek mi ngi noonu daal la yàlla xam doy na waaye buñ xamoon seen sarax waaw am. <laughs> takk la def barki Seydina Mohamed dama mën a ñaan. barki alquran billahi jaral du question dama. question dama bëgg ay client lu ma yëg sama yaram la jamono yi wallahi la non sant naa ne yaram bu tàng billahi wallahi wa taala barki alquran du mais problème xam man lan mooy mbiri Cheikh euh, dem nañ defi émission Dubaay ci kaw asamaan sa mm-hmm. dinañ demaat faneen ak faneen faneen ci àdduna bi fu ne dinañ fa dem. Mhm. bu soobee yàlla. Mhm. te ay at a ngi nii bu ñu ba léegi gisuma nga dellu ginnaaw gisuma ku takkale pot. Mhm. est-ce que comprendre wax ba ni def émission ba bis ba nga may may xar. ma nangoo jël sant damaa xam ne kii bu ma defee estati xam la la am. ay Amadou Diawara di kontaan di ñaan ku ne woon ne kii kontaan nañ ci moom. am na ñooñu bu ma leen defoon estati nee nañ ma xaru tabaski nii billaay du ah baa xam nga ne li ma la jox lewul alalu nit ñi la lekk nangam lekk na sama nangam un mois ngi nii six mois ngi nii un an nii mu lekk sama xaalis d daf maa bloqué ak na yoon laa ci daj mhm. dama am loo xam ne que gis nga ni man nit jiitalu ma mhm. loo may jariñ de mhm. man bul sonal nit ñi bul loo nit yi man loolu laa jàppee nit bu loolu amul ba pare nit ñi kontaan nag mu gën a ti ma neex te man leer dama ne ba fii may wax ak yow man sa liggéey li ma ci xam yaa a koy ci yoon parce que nit bu ma takkali pot ndax ta nga waral ko gisuma ko mun ma ci wàññi kenn. Mhm. te li may wax mooy nit ki dafa bëgg victoire ragal defet mhm. te boo gisee may waxee noonu boo taxawee ne nit ki amul problème rek di nga seen noonu bu jóge fu kenn xamul. Mhm. buñ fabriqué ñëw ne ah Cheikh yaa kii kii dama nekk na sama nangam te gisuma nangam. nga xam ne gis nga ni moo tax. Cheikh loolu dama ci tagal benn audio. boo xamante ne nit ku baax la ku nekk ba maa ngi jégalu appelé nekk ba Allemagne. nit ku baax ndeysaan. sama dëkk. wallahi lazim ñun nit masuñoo envoyé xaalis ñu lay bloqué. ñun dañoo rus loolu ba pare jomb ko suñ ko naree def yàlla bu ñu gudd fan. billahi man gëmuma loolu tappale yooyu. wa barke Seydina Mohamed bu koy def rek bu doon ay milliards ba ma ko yónnee lépp loo fi am dañ koy collé ba mu baax fa mu war a dem mu dem fa. bu dee mm-hmm. DSL bu dee GP bu dee sa mag lañ koy jox bu dee sa rak wala koo manti doon. Mm-hmm, mu dem. jeex na ñu moom amul envoyé xaalis ñuy tappale wala ñu sëdd yooyu. dégg nga Cheikh maa ngi ziar bu baax naka yëtte yi. mbaa ci jàmm rek. maa ngi jégalu de sànq. damaa nekkoon ci yoonu dem liggéey. mais incha allah déglu naa audio yi ni nga ma ko leeralee yëpp wax dëgg yàlla leer na nañu hmm. waaw bu soobee yàlla dinaa ko jëfandikoo noonu fi ne damaa nekk ci barab bi may liggéey di doog a si nii. waaw mais wax dëgg yàlla eh, ni nga ma ko leeralee yëpp yëpp leer na macha allah macha allah di ñaan rek yàlla nañu yàlla jubóole bu baax dafa ñu si taw fi ak jàppandal waaw siyaaral ma famille bi ñëpp ñëpp nag wax dëgg yàlla kontaan naa trop vraiment parce que li nga waxoon ci produit yi vraiment danga nga ni woon ku la ko ko fàggu ci yow vraiment doo ko taxawaalu maanaam da nga koy mën a libéré ci nu mu gën a gaawee te gis naa ne vraiment l'autre jour sa yablaat tamit moom it wax dëgg yàlla def doon na def tout pour ma mën cee jot mais sant yàlla ko jour bi ma waxoon tam ci la koy yóbbu yóbbulu ci GP bi noonu la ko defee vraiment affaire bi daal yéen a ngi koy teg ci yoon. moo tax ñu mel ni a jar a jàpp daal di ñaan rek yàlla na hmm. affaire bi message bi bari na message yu bari lool ci li dafa nekk démb moo tax sama xel dem ci hmm. dafa envoyé xaalisam lu mat deux cent mille su ma juumut hmm. ay produits yu mu doon commandé xëy na sax bëgguma woon sax teg audio yooyu mais xëy na lu tombé la rek am na lu baree baree baree baree bare si message yi nga xam dañuy jëflante doomu aadama ak ñuy jëflante ba pare ñuy témoigner si ñi hmm. feebaroon fajoog nangam ak nangam nangam ak nangam. Hmm, affaire yi. Euh. ñëkkul ñi génn si télé yëpp wala ñi génn si internet ñëpp ñoo yem. yem am na hmm. ñoo xam bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër. ñu seex dañoo xam lu ñuy def di ko teg ci yoon. soxlaawuñ lekk dërëmu doomu aadama. bu lewul di ko teg si ay tappaleeki naxaate wala ay triande. ku ñu envoyé sa xaalis bala ñoo am jàmm wala balaa maa am jàmm sa produit ñu produit ñu ñu ñu ñu collé ko wala def ko ni mu war a def pour mu dem. nga utiliser gis ay tawféex. ñun yàlla sa la ñuy suturaale. Mm. nit ñi di kontaan di gis ay résultats moo gis mm. tey waa ñaa sama Instagram yi nga gis ak yooyu wàllum produit yeeg faju yeeg yooyu. ay ndoxu si teg émorite ak nangam ak nangam nangam ak nangam wàññi biir ak bopp biy métti bañ biy métteeg. yëpp a ngi kerem fes ak yokk awra nangam nangam. macha allah xam nga sant yàlla daal <laughs> affaire bi <laughs> amul secret loolu la da ngay def nit ñi gis nga nga defal kii mu gis résultat booy laaj keneen kee booy laaj keneen. loolu la ku ñu liggéey mu bëgg dindi liggéey toj liggéey bi soit ñu suul ko ci armeel xeet yooyu. Mhm. ak koo xam tamit dafa bëgg a ba mucc ñu liggéey ko. Cheikh. bu fekkee da nga bëgg a belende ba mucc ñu bañ a liggéey am na loo xam ne su ma la ko bindalee jox la ko da ngay wut neuf xeer. neuf xeer yu ñu xongu boo ci am baax na neuf xeer rek na nekk neuf xeer. comprendre nga. nga tàngal ko bam tàng jër jër jër jër jër jër jër jër nga mm. sotti ko si saafara bi comme que bu fekkee def nga si ndox su ma la joxe kii ak yooyu nga sotti ko maam si saafara si mu fay si saafara si nga sangoo ko juróom-ñaari fan barki Seydina Muhammad ku la laal yàqu barki alquranu karim doy jaaxal te lu wér te wóor te alquran la mm-hmm. Cheikh du ma waxante du wax lu ma gëmul mais léegi nan nga mën a waxee parfois nit ñi euh, am da ne ku la laal yàqu am na ñoo xam dañ dem liggéey la mais dina ñëw waxal la lu amul créer la sosal la ba fi la nit ñi teg wàññeeku te fekk du dëgg loolu. loolu euh, protection da ci mën dara. sama xam-xam boog laa wax ak ah, hmm. hmm. moom dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo hmm. nit ki man exemple man dañ mel ni dañ am nañ commentaire yoo xam des ndeysaan sama client envoyé ma ko. nga gis ko xam dama def émission ndeysaan am ñoo xamante ne ay siisu maan lañ wala ñoo xamante ne ay concurrent wala yooyu noonu ñu commentaire n'importe quoi def ay faux profil ay faux compte texte naan la kii trian la dafa lekk sama xaalis nangam hmm. ma loolu man su ma fekkee nar naa lekk xaalis doomu jaam doomu jàmbur ak foo mante nekk hmm. yóbbantewu ma la say garab yi yàlla bu ma ko fekkee hmm, xam nga di wax yoo damay ree ma ne nii xam nga dafa yomb xamee rek gis nga boo ko xoolee rek doo comprendre kii nii xam nga lee la waaw comme te da lay topp fépp nag. waaw xam nga foo feeñ rek mu bind ko. très bien. te kooku barke Seydina ma après ma duggee suivre noonu dugg yenn émission yi xool ma gis mu nekk même profil. Mm, man après man nit ki doomu aadama doo comprendre quoi. wala te foo pro mm, xam nga doo comprendre nit ñi. wallaay waa affaire bi newut foofu nga man samay preuve dama ko teg fu leer nañ mm. képp ku ma jëflanteel di nga xam ne kii duy tappalekat man ni ma mel ci biir laa mel ci biti. lu ma la wax nii ngay dégg boo buñ jëflante loolu tamit incha allah loolu mooy am. loolu mooy am soo ma envoyé nekk milliard it. lépp mm. loo fi am day dem. dañ ko ci yoon te incha allah rabbi di nga ci gis ni di nga ci gis njariñ ñi nga ko bëggee ak ci lu mu mënti doon. macha allah macha allah. Eh, sëñ Cheikh ñu ñëw ci jigéen ñi nga xam ay Evenberg lan. Mm-hmm. Evenberg dégg naa fan yi amoon na anniversaire sax. Mm-hmm. ah euh, on se li goog on se li xool ma <laughs> Evenberg foofu ci biir Allemagne. Euh, jigéen ñi nga xam ne kër âge bi mi ngi sori. Mhm. jëkkër tëlin ñuy mhm. dugg fu ne di ñaanlu. Mhm. ak jigéen ñi xam ne dañu topp benn góor rek ne budul kii rek du baax ñaanal ma ci kii. loolu erreur la dee leen lu pour daje ku baax rek mais jàpp ci kenn kii rek loolu wóorul de. bu la waree rek nga yàq ko de. léegi kuy ñaanlu pour borom kër loolu loo ko mënal. kuy ñaanlu pour borom kër loolu du problème. am na ñoo xamante ni jafe na lool pour ñu am borom kër wala sax bu dee góor gi jafe na pour nga am jabar. boo arrêté trop c'est ba tey dama ñëwaat adat. nit ku nekk am nga tur am nga sant am nga ku jur sa yaay mm. am na tur am na santam mm. bañ koo bam wala yow yow mi ñëw si man ba nga juddoo mm. dañ la rayal xar tudde la bu dee jullit nga comprendre nga tur woowu moo lay topp tur boobu dafa am solo si doomu aadama comprendre nga nga tëw am nangam mag lépp ay gàllankoor la man bu ma ko xoolee dinaa xam kii lan moo nekk ci moom ma xam li ngay kii ma jël am na sungu boo xamante ma nga ne le waaw pour am jëkkër wala jabar ñu bëgg jëkkër a jabar billaahi wallaahi wa taala bu ma la ko joxee boole ak sa sarax barke sëy na xam nga gis loo musta gis hmm? moo xam jëkkër ak moo xam ku tëju mënoo nanga ak moo xam seex <laughs> barke Seydina Muhammad dama dama xam li may def wallahi lan seen du caaxaan Allah am na beneen sungu am na benn femme dama ko bëgg tamit teg ci dama ko bëgg hmm. bëgg bi weesuwul nit ki hmm. seex li ma génnee nii preuve comme nit ki nekk Allemagne yi ma jaay koy bagage ambale ko teg ko fi mu war a def loolu bëgg mënu ko weesu ñun lii dañ ko bëgg aw ma fenn fu may rusa dem mhm. barki alxuraan aw ma fenn fu may rusa te su may génn man kese maa taal sama oto su ma neexee génn dem mm, aw ma garde corps sama buntu kër amul garde corps nangam ak nangam mm, loolu lu leer mm. na nga bari na së sëriñ yu ñuy rang tamit xam-xam mën na fa bañ a nekk non sëriñ si tamit gis nga loolu lenn naan naa ci secret de moo tax maa wax sëriñ bu xat ah euh, li ma d'accord nan moytu sëriñ su bari seen ndam mooy na nit ñi fees. fees nag mën na tekki ñaar mooy li lay toppee paree gun ci buñ ci paree. mu léebur kon fexeel ñu gaaw a pare ci. beneen bi tamit am na ñoo xam ne dañ lay indil façon faj boo xam ne que faaw yaay xaat di bàyyi bu ko defee boo bàyyee nit ñi mën a toppul traitement lay boobu lay indi tegal la. yooyu man d'accorduma ci man kan laa d'accord ci xat mooy nga soxla seex borom produit joxagoo ko xaalisam munoo jot ci moom nga xam ne que boree xat na garaawul amoo ba lenn loo ko teg ci kawam mais encaissé xaalis nit ki ba pare nit ki toog ay 6 mois 1 an munul topp ñu naan ko dafa war a xaar nit ñe bari nangam nangam xanaa boo gisoon li may daj déedéet d'accord ma loolu de li may daj kay mooy mooy daj kii bu lekk xaalisam bañ bañ ko sonal mhm. boo xasee lekk xaalisam nag doona ab jaamam moom ba keroog muy mhm. li ngeen mat ñenaa leen nag résultat ni ma koy bëggee du force de mhm. du koo ñaanal mu nangu Mhm. mais defal sabab bi yéene bi fexe li mu war a jot mu jot ko ni mu ko utiliser nga wax ko ko ànd ceeg respect mais jox kii garab fexe du xam mukk ni mu ko utiliser. Mhm. kii toppee la garab doo ko ju ci mën a jot lu kii bu ko defee loolu day loolu quoi man neexuma. Mhm. moo tax sëriñ bu ci wàcc rek xoolal li la wàcc. yaa ko teg sa yaa ko teg sa bopp. fonk leen client yi. jox leen cër. ah am na sëriñ soo xam ne bu nu waree génn réew mi rek commencé xool client yu yàgg yi. di leen ah saa nagam waaw nagam ma bëgg a ñëw dëkk sangam ne yow far nga dekke ban dëkk fekk yëgoo ko woon nit ki da nga koy yëg avant bu ko defee nga nga jaral ko mu jaral la mhm. loolu mooy mindi am leen respect bu baax a baax a baax mhm. enseigne Cheikh wallaay Cheikh di bàyyi bloqué beeg yooyu wallaay bloqué mhm. nit ki ak jox la garab du mu lox noo ko utiliser nga ak yàqu la ci yoon weeg toog toog ñàkk yàqu sax mënut ta ñàkk ci yoon parce que man des fois amoon na garab yu ma doon kii jaay euh, yónnee ko Mm. des fois GP yi dañuy tegle seen bagage affaire yi diis mu toj wala mu kii si avion bi sànni beeg yooyu. non non mooy jox lay ñaan. Mm-hmm. ne la rab yi ah, yàqu nañ ko ci yi yàqu man góoma yooyu. waaw ma mel ne benn secret gis nga am na loo xamante ne bu fekkee xamuloo sax. Mm-hmm. bu fekkee li nga yor wérut lool. waaw nga bañ rab yàqu ko wala jinne ci yoon bi. jëlal këriñ nga def fa nga def ko ci man la samay garab man defuma si këriñ mais comme exemple bu la fekk li nga kii ay lool nga si foofu nga ko teg quoi jëlal këriñ nga def fa rab mënu ko yàq dara man samay garab su ma koy yónnee amul këriñ ko si mais loolu lu dëggu lu wérte la mm-hmm. parce que da ngay gis euh, mag njëkk ñi bu ñu sangu bu taajee ndox rek jël këriñ tugal ca <laughs> xeet bu mel noonu Cheikh man yëfi mag laa yor wallaahi <laughs> yëfi mag laa yor macha ah! allah macha allah yàlla gën a barkeel ngay jëriñ nit yi bu baax a baax hmm. Cheikh kun kort nag mën nga ko dindi escorte waaw am na lu ñu ko bindal ci alxuraan. Mhm. jox ko ko macha allah mu sangoo ko macha allah wax dëgg yàlla. luñ ko kort moom wax dëgg yàlla dana sant yàlla daal. sëñ bi nañ la liggéey ba ngay bëgg a dee. Mhm. boo ñëwee ma aja sa tur. raw xaani ànd ak sa turu yaay ma xam li ma lay génnee la yooyu ma jox la li ngay utiliser sa aaja faj ak noo mënti mel kuñ kort ak ku umu ku am dara ba mënutoo am wala ku jaaxle say bopp seex gàllankoor yi dafa bari si doomu aadama ay gàllankoor ci différent nag mm-hmm. wallaay du caaxaan lu baree bari xëy na bu demee si table bi si kanam dina gën a leer est-ce que duñ jóg ba tey ba tey incha allah noonu bindal numéro seex borom produit yu baax yi 77 78 397 65 93 78 397 65 93 Cheikh borom produit yu baax yi numéro bii whatsapp nga jot ko jëran directement moom rek lan mas a defal émission ca kaw asamaan sa nag ca Dubaay. de ak yu mel noonu maanaam mu doon koo xam nag euh, liggéeyam daal bëgg na ndam ragal na defet kon Cheikh ñu jóg abonné leen Tektal TV euh, bés furus bés kolos bi émission bu ñëw ngeen am ko Cheikh borom produit yu baax yi indi ñu ci bi. Mhm. bismillah xew a dikk loraa nga dakk waaw Cheikh. émission bi lii moom bu ñu ci doon taxaw. Ah. mën nañ ci am daanaka bis ba bis ba dellusiwaat sax. te du jeex macha allah daal. Mhm. yàgg nañ ci ya bu dul dara euh, ndonga daara lañ. jàng nañ. Mhm. ba jàng jotee. waa yàlla moom mooy may xam-xam. Mhm. te xoolul gone xoolul mag. macha allah macha allah daal. waaw mu ngi moom ku mën a bindal boppam la gis daal. borom produit lii muy bind nii moom balaa muy àgg bisimilah rahmaani rahim lay doon moom xam naa waaw am na sëriñ soo xam lii moom faaw ñu bindal leen ko sax lii nii directement. Cheikh dañoo waxul rek. waaw kër rasulullah. bisimilah rahmaani rahim. macha allah ah. léegi comme exemple sax. Mm-hmm. Euh, basmala comme bu dee waaw basmala baax na lool nag. pour mm-hmm. wirdu ko macha allah ñaata. boo ko defee mille 1111 baax na. 1111 ngeen koy def. boo ko defee 66 baax na. 66 baax na. macha allah dafa bëri ay njëriñ lool macha allah. Hmm. Euh, beneen bi comme exemple. comme hmm. wala jox ma benn tur bu la neex exemple. mu jox la tur bu la neex. Hmm. Euh, koo xalaat góor jox naan Ousseynou Ly. Ousseynou Ly li Ly. ok ci Allemagne. bu laajee sax moom jox tur yaay moom soo yoon bul faale la. <laughs> sama waay Euh, boo bëggoon adat turam jox la yaayam ah? non yaayam dina àpp xaa ma ñëw fii exemple boo bëggoon maa ngi jégalu wala appel yi euh, maanaam Ousseynou Ly ah. boo bëggoon adat turam pour xam li nekk ci moom xam raw xaanam wala nga bëgg ko kii saraxam bu fekkoon ay gàllankoor dafa nekk ci moom mm-hmm. ak lu mu manti demee ah. wala lancim boo adatee turam mu jox la exemple ayn soixante dix la lay jox mm-hmm. siin trois cent yagi dix nuun cinquante dama ko mm-hmm. bind France mën nañu ko bind arabe it. waaw waaw pour expliquer pour ñu bari xam nga mm, jàngu. waaw laam 30 lay doon. Mm-hmm. yàggi 10. lii lépp ab lim la. ab lim la boo ko plissé lépp boole ko. daf mm-hmm. lay jox benn lim. lim bi doon ñaata am lim boobu bu la joxee dafa am loo ciy yokk. loolu ngay mën a am li nga demee mbiru Ousseynou li ci table bi kay mu seetaan mu xam boppam sara xam benn. xëy na mën nañ ko kii peut-être ku nekk saxal dafa gàtt peut-être ah. mën na foog ne ñu ñaar dañoo combine dara déedéet kii comme man moom mooy man yéen ñaar yéen mais comme ñeneen ñi ma mais dafa moom xam na xam na ni dañ dama tuddal yaa dama tuddal tur bu la neex ma xam waaw foofu laay wax non xam naa waaw comme exemple moom waaw raw xaanam su ma bëggoon xam damay xam économie mi raw xaanam lii la nangam ak nangam waaw wallaahi bi lay waxal su fekkoon dama bëgg a xam saraxam waaw euh, damay jël yaa nu tudd mère Fatoumata Ndiaye Fatoumata Ndiaye Fatoumata Ndiaye waaw Fatoumata Ndiaye wërsëg la de ah, ah. wallaay lancim mère kon dégg nga kër xewal yaa ngi ñëw de mère Fatoumata Ndiaye xaaram adat Fatoumata Ndiaye wërsëg dama yàgg man dama yàgg adat ay tur donte hmm. avant ñuy génn si télé bi nii waaw ay nit dañ ma daan seen secret si suuf ma koy kii dañu yàgg adat ay tur léegi ñoom nañ xam seen sarax rek kon euh, kii ko exemple Fatoumata Ndiaye hmm. tubaab yi ku leen sarax ñu wax ak yow tubaab yi boo ko arrêté fagi 80 abonné leen Tektal TV doo ci fay dara comme neex nga nga abonné njëriñ leen yor bés fu rouge bés fu cloche bi émission bu ñëw nga ko page Facebook Tektal TV l'officiel. Fatou. YouTube Tektal TV. macha allah Instagram. barke Seydina ah. Mohamed du caaxaan. du caaxaan wërsëg. borom wërsëg pire pire. pire pire pire Fatou Mata Ndiaye. Fatou Mata Ndiaye. ok dama adat tur yu mel nii damay xam li nekk ci raw am na tur boo ko yàggee adat yàgg adat. Ah. day ñëw sa bopp. day ñëw sa bopp moom mi war a saraxe Fatoumata Ndiaye non moom nag su ma bëggoon xam saraxam dama jël turu yaayam moom Fatoumata Ndiaye mii ah. ma arat tur boobu am lu ma ci yokku am lu ma ci yokku di ko nangam di ko nangam di ko nangam ñu la kat saraxu Fatoumata Ndiaye bii sarax sàngam la kon indi ma bu feebaroon bay nangam moom it am na feebar bu nekk ci moom beneen chiffre bi kan si xaaral mm-hmm. nit wërsëg pire la nit wërsëg pire la moom Fatoumata Ndiaye macha allah macha allah macha allah Hmm. wallaahi. mais kon instant bi ni képp ku tudd Fatoumata Ndiaye rek nii mu mel noonu lay dem ci àdduna waaw nii lay mel. Hmm. mais nag si loolu nit ki en général borom wërsëg yi man naa am lu leen lu leen kale wala. pour mu décanter il faut nga xam saraxam. sarax bi nit ki mën nga am wërsëg lool lool. am hmm. lu la téye. lu la lu ndaw. am lu la lu ndaw mi mel téléphone bu bees tax. comprendre nga macha allah mu am code bi si nekk. faaw nga unlock ko comme ni ko sama xaritu Gambien yeeg macha allah comprendre nga. comme lool la nit ki mën naa am wërsëg lool ba pare affaire bi kale Mm-hmm. maanaam comme li ma faral di wax sarax mooy décanté raw xaan mm-hmm. barki Seydina Mohamed Cheikh <laughs> barki Seydina Mohamed dañu xam ne ñuy def wallahi lan seen du caaxaan wallahi wallahi mm-hmm. Faatumata Njaay bi siifuram ay wërsëg kese kese kese la macha allah ba pare am na feebar bu nekk ci moom bu yàgg wala feebar moom Faatumata Njaay comme que nee nga mooy sa xaritu xaw ma sa yaayu yaa sa xarit yaayam waaw xëy na moom bu ko laajee dina ko expliqué wala moom mu xam ci dara waaw feebar ba bëggoon mu dañ ah. am na lu koy jox génnee sarax yi barke Seydina Muhammad day dem doxi soxlaam ah. wërsëg na macha allah wërsëg pire moom parce que gars yi des nga sa sarax ja ñu hmm. capté ko client bu ñu am di leen ko jox di leen ko jox fekk nit ku ah. nekk ak saraxam mën nga nag bokk affaire yu nuroog saraxam xam nga Ousseynou Li boo ko arrêté lu mu lay jox nga arrêté turu yàlla lay jox da nga koy boole am loo si yokk xam nga boole si ibnu nangam nangam nangam nangam di moyen par deux nanga xam nga bëgg moo. mais moom moom loo ko gisoon xéwal Ousseynou wala comme nga ne yaay. Ousseynou lii xaaral ok xaaral adat ko. ah une soixante dix. Ousseynou dikk lor na Sayer Fall nuyu naa la mami d'enfant nuyu naa la. Euh, nuyu nañu Aji sama xarit bi nekk Angleterre moom it Gambien la waaw. Ousseynou li ku nangoo góorgóorlu. nit ku gëm boppam ba paase gëm boppam. ba paase gëm boppam nit ku gëm liggéey. waaw ba paase gëm liggéey maanaam. foo ko hmm. natt weesu na ko mooy nit kooku. Mm-hmm. beneen bi moom dafa am ay rab yu nekk ci moom. rab moo waral muy yaakaar muy tas. Mm-hmm. moo warul lu mu dugg du àgg ak xeet yu ni mel. Mm-hmm. li ci ay rab kese la. ay rab la rab kese la mën na ko jural lu baree bari si wàllu àdduna. billaay du ñaari sifir rab yu ban la yore. ñaari sifir yu ban rab yu ban lu ko wax mu koy def bu ñu jëflante après incha allah amul problème bu ñu jëflante barki Seydina Mohamed dina bàyyi sëriñ ñi mu doon liggéeyal fépp si àdduna jàpp ma. du question dama wax pour ndamu. Hmm. xam-xam lañ yor seex. xam te lii hmm. lii du échec. du gis naa kenn ku koy jàngale si internet bi ku am hmm. xam-xam. kooku dama koo naw mosuñoo gisante. man nga yor tableau gars yi tableau yi dañuy bari lool. tableau yi dañuy du bu la nee nga bind ay aaya nangam boo ko boolee am xaalis. aaya nangam dëgg la. mais nit ki balaa nga ko ubbil mu am xaalis nga mën a xam saraxam xam lan la. xam saraxam xam turu yaayam nga koy jaar nangam ak nangam. comme yàlla indi nañu lu bari si sarax. yàlla même asaka bi nga asaka bi nga joxe sarax la Hmm. xam nga addiya bi ngay joxe tamit sarax la. Hmm. comprendre nga. Ah. Euh, muurum koor bi ngay génnee sarax la. xaru tabaski bi ngay rey sarax la. seex gars yi nag seex seex ah. xam-xam <laughs> seex. xam-xam daal jege na ah. léegi léegi léegi joueur bu bëgg am euh, kii nag je marque nag mën nga ci dara di dugal je marque mooy. ok di dugal mu dugal loolu du problème loolu saraw xaan lañu décanté décanté ne naa la sarax amul lu mu mënul décanté sax sarax mooy décanté doomu aadama. Hmm. décanté. ay Cheikh gars yi gars yi ay bariwul de barki alquran karim du caaxaan tëll tëll yi moo bari rek ak maaman maaman maaman maaman ñun ay xale yu ndaw lañ jàng ni ar am xam-xam bani ar ba pare sant Konte yor sant yu ñaaw Cheikh dëkk Touba dëkk bu sell ba du ñu tappale du ñu naxaate du ñu wax lu mu lu ñu gëmul yenn tamit sarax na gars yi comme yenn gars yi xam ne sarax dafay ay ay ay fukki nag yu xonq ak ah. ay juróomi nag yu xonq sarax dëgg la am na mais am na ñoo xamante ne teguñ ko fu leer fu leer dañuy làmbati naan di la wax ay sarax yu nganda nganda nganda nganda fekk am waaw compliquer ka waaw nga jox leen ñu defal la ko affaire yi àggul foofu xam-xam dafa simple waaye dafa jafe dafa jafe dafa simple waaye dafa jafe nit ki nag mën nga xam dara lii dafa ma yomb lool lii comme ndox ci man mm-hmm. da ngay toog léegi mm-hmm. ma xool li nga xam ne si yow léegi ma xam ne kii lii ko baare nangam ak nangam léegi yow boo bëggoon remarque euh, moom doo ko def ci football loolu dégg ko ma ne la sarax amul lu mu mënul décanté loolu mm-hmm. du problème jeex na sarax amul lu mënu décor bu ñu la joxee li nga utiliser sa marque waxuma la lu raw sa marque ngay def ah. loolu moom amul sama dem te ñëw sport léegi beneen mbir dafa am boo xam ne que ñi nekk bitim réew di yëngatu ci mm-hmm. ak ñi nga xam ne que dañu bëgg suivre mm-hmm. ak match bii ku gagné ñu am lii mm-hmm. yooyu mën nga leen ci jàppale wala loolu maanaam du ma seet ne ay da ngay gagné carte gi wala yooyu waaye su ma la xoolalee ba jox la sa sarax ma génneel sa sarax jox la saafara sooy sangoo ah. lu raw carte sax mën nga ko am Mm-hmm. wërsëg doo xam fu muy jugee xam nga carte rek nga wax ah. mais doo xam fan lay jugee moo xam carte mm. gi indi la ko moo xam ne indi la ko mm. wërsëg ma danga koy am par force macha allah lay am ubbeeku daal mm. Cheikh <laughs> bilaay su ma reetaan dama xam li may wax Cheikh dama xam lan la quoi wallaay la su caaxaan gis nga affaire yi méttiwul nekkul ci tamit ngay def émission teg mm. ay bind alxuraan téere yu rëy affaire yi nekkul foofu gis nga affaire yi mm. lu simple la nga bind xam yoon wi xam fi nga jaar kii nii la tudd lii mooy yaayam nangam nangam kii laaj lii mooy saraxam nangam ak nangam nga xam lii mooy saraxam lii moo ko décanté mm. lii moo ko kii boo ko defee mu décanté wu jox ko saafara mi sango macha allah moo xam rab bu ko gàllankoor moo xam leneen bu ko gàllankoor moo xam leneen moo xam leneen moo xam leneen nit chiffre la yàlla indi nañu lépp macha allah te yàlla léppam chiffre la numéro téléphone yi euh, téléphone yi ay numéro yi pour nga woote chiffre la boo juumee du jàll boo juumee du jàll bu manqué du jàll yàlla biddiwam yëpp chiffre la it mhm. leneen chiffre la xam nga yàlla léppam chiffre la daal mais léegi yow kay par exemple ñi jékki-jékki fay bëgg a tàkkat mhm. ko ñooñu loolu mën ci taalaat leen taalaat leen sarax laa leen jox ak sangat seex sarax sangat du dara sarax ak sangat ñun yor nañ sunguf yor nañ alxuraan sarax sarax ak sangat Mm. buñ la arrêté sa tur comme ni ma ko waxaate répété waat ko rek arrêté sa turu yaay waaw gis nga boo mosee fayak boo musta fayak boo nangam taane rek buñ la ko defee ngay décanté wu da nga yëg loo musta gis mm. barke Seydina Mohamed te di nga bàyyi sëriñ nga amoon daaw ak daawaat jéeg 2001 ak 2003 nga jàpp joueur bu football di toog baa nag bëgg neex entraîneur bi dem titulaire loolu mën nga ci dara wala loolu yëpp loolu yëpp comme léeg-léeg benn entraîneur ñëw rek ne bëgguma diw seex waaw déggoo ma la sarax mooy décanté mm. sarax bu seex dafa mel ni déggoo ma macha allah Cheikh borom produit ba dégg ngeen li wax bu baax. Ah, ah, sarax daal yow daal sarax la nga wóolu dafa mel ni. Mhm. mais comme nit ki nit koo gis mm. arat la. Ah. chiffre am la chiffre am la. wallaay du caaxaan nga ko si turu yaat da ngay mën a xam saraxam nangam ne doomi diw sangam ji. Mhm. mu jox la lim la jox nga génneel ko sarax bi jox ko ay ñaan yi muy utiliser. balaa un mois un mois sax bari na balaa deux mu gis lu. lu mos yu mënu yu mos a gis si àdduna. léegi ñi nekk bitim réew am na ñoo xamante ñaan lañ ba tàyyi wala lan si sept ans mënuñu am lu ñu bëgg léegi ñi bëgg a tukki nag euh, mu tëleen ak ñi nga xam ne ka dañ fa nekk ay kii tëleen loolu leen mën loolu yëpp ah. seex <laughs> waaw ba tey ma ñëwaat ci sarax. ci sarax nga koy delloo gis nga Cheikh sarax. Ah. tur boo ma mënti jox. Mm-hmm. wala tur bi ma client mën a jox noo mënti tudd damay adat sa tur. Mm-hmm. tur bi dafa am lim bu jàpp. Mm-hmm. koo ko may woowee wala foo mënti nekk am nga turu ah. moom nga may jox ma boole am lu ma ci boole am lu ma ci boole. Mm. ñu mën noo xam ne diw sàngam mi lii mooy saraxam. Mm. ma génnee sarax bi mm. jox la looy léegi am na ñoo xam ne que bi ñu tukki bitim réew. Mhm. ay pexe lan tukkee. Mhm. ba demeewul seen tur. Mhm. waneen tur lan tudd ci seen i passeport ak ñu mel noonu boo leen doon ñaanal nga téye seen passeport di leen ñaanal te fekk na neen leen tudd. ñaan bi fu mu valable tur bu njëkk boo la. man du ma ñaan di téye passeport xëy na sama passeport bi peut-être xëy na dañu ko gisaale lii sama passeport la man du ma ñaan ko teg noonu. si kaan bi laa ko tegoon ma doon jàngal Alxuraan laa ko dindi fekk maa ngi toog fee xam nga li sama passeport la macha allah. ok mais pour bi ñëwaat quoi. moo tax waaw si si dëgg la da nga yow da nga mën sa liggéey. man <laughs> macha allah daal nit ku nekk mën sa liggéey fu ma toog émission ma toog même 2STV toog naa confrontation. Mm-hmm. ma ne Cheikh Taïf laa nam si émission. xam allah xam nga ñaareel euh, mm. ay passeport ak yooyu. soxlaa ma mu fi ñëw lu ma soxla lii nga bëgg mën naa ko wala mënu ma ko du nekk du laa man mënu ma lépp mm. waaye soo ne ma kat ñi jëflante kat nga xam loo ma xam ni que la nii su ma ko mënee rek mën naa ko buñ jëflante nga gis résultat yoo mos a gis macha allah macha allah jaaro dama koy defar mm. jaaro moom du problème du problème waaye xëy internet bi gars yi ah, ay jaaro ay Souleymane nangam ak nangam mm. Souleymane rek amu fi jaaro leen rek amu fi jaaro <laughs> sëñ <laughs> non te et puis sax ñoo xam ne jaar dañ cee boolee tappale yu bëri. Ah. parce que man Alaaji Njaay fële ca Allemagne li nga xam ne mooy partagé mbirum Tektal TV fan yee war dama sëriñ bu joxe woon jaaro boo xam ne ay keetu ciment ci nekk samay yaram bi xol bi tàng ma mer façon yi mel noonu heureusement mu doon sëriñ bu ma mësul invité ma ne ko nag kii wan ma ko ma xool pour moom moom moom fu war a jëflanteeg man rek moo xam ne am na combat quoi. parce que. billaay des fois nit ñi expliqué ay problème man man xaru rek laay bëgg billahi wallahi wa taala moo tax lii ma dugg si ni peut-être yàlla tey la koy doo man sama sama rawxaan moo déclenché wu pour may hmm. ñaanal doom aadama yi hmm. te yàgg nañ ne di ko def mais fësut hmm. mais léegi ku gént di tiit nag loo ko mënal ku gént di tiit loolu am na lu ñu jël sunguf bu ñu jël boole kaak sawum gaynde sawum gaynde waaw bu la neexee da ngay toqal yëpp teg si kii nga tëdd doo gént di wala nga kii ko sa kanam waaw gént di tëdd moom arrêté nga ko wala ah. duy caaxaan dafa am sunguf bu ñuy kii wàllum rab loolu rab moo koy def léegi xeetu konkuur nag loo ci mën concours tamit am nañ am na ku ñu xëccoo moo xam wàllum président moo xam wàllum wàllum wàllum waaw concours daal concours dafa bëri façon concours yooyu yëpp dafa am lu ñu lay lijjee <laughs> bëgguma tudd aaya bi waaw nga waaye da ngay jël suufu nenu ginaar suufu nenu ginaar nenu ginaar fi muy nene fi muy nene ci suuf soosu ngay jël ak ndoxu taw aaya ba nag maa ko xam du ma ko bind doo ko bind ba pare jël tur adat ko nangam ak nangam nangam ak jox la nga utiliser ko am na si beneen boo xam ne dañ koy takk bu fekkee concours bi mhm. euh, boo xamul maanaam euh, ña ngay boole di concurrenteel seen tur mhm. da ngay tur bi def nii nangam nangam xam nga adat rek xam nga seen tur quoi lool loolu li nga fay dugal Hmm. même bu dee sa tur dafa am loo xamante ni dañ koy bind tamit dugal sa tur hmm. benn da nga koy takk si antenne wala foo xamante ni ngelaw da koy ëf muy def nii mais boobu sa tur bi am sa tur sa kaw lay féete ñeneen ñi nga xamante da nga bokk ñoom concours bi hmm. nga bind seen tur ci suuf nga koy teg ci suuf nga koy teg exemple xaw ma xam na wax na am bi day féete kaw bi mais da koy ëf nii concours booy concours booy lijjanti demal nga toog seex ah? barke si na ma xam ne du caax xam-xam laa lay wax seex masha Allah waaw yal na yàlla kon yi yëpp naa tëj na ne tekk rek ah. seex nee naa la am na lu ma mën Mm-hmm. mais jotagut wax naa la ko ba taay sax bañ demee Dubaay ak wallaahi bi ñu njëkk def émission ak lu jot yomb moo tax ñun suñu lépp tekk-tekk la rek yàlla ay mbiram moo xam ni mu ko programmé mm-hmm. yàlla léppam programme la moo tax ñun duñ bëgg xaalis di mm-hmm. dugg ci lu ñu xamul ndànk ndànk mais fii fii rafet na naar Dubaay xanaa ñoo ko non fii du naari Dubaay sax waaye som <laughs> liggéey bu set bi rek moo tax fa tey xam nga non non dama xam diggante bu ndaw Cheikh mii ne Dubaay téye ko ba mu dëgër ba ba gars yi naan am pour identité am borom Dubaay la di wax <laughs> façon bi la mais mais multi milliardaire Dubaay yi wala. sant yàlla rek financé fii wala. Cheikh sant affaire ah. boo ko mënee. Hmm. du jafe. waaw benn del wax dëgg. di wax dëgg. di lekk lu lew. di lekk lu lew a tàngal xolu doom am na ñoo xamante ni ndeysaan nit ki day wooy ay yenn sëriñ du ñëpp am na sëriñ yu baax lool macha allah macha allah. dañuy woo sëriñ yenn sëriñ alo di xuur xuuri baat hmm. xam nga xuuri baat di garaaw garaaw jafe-jafelu hmm. xam nga yooyu nit ki client bu la kii da nga asalaamaaleykum noo def bàyyi si jàmm comprendre na nit ku hmm. kese waaw ubbeeku man ñi may jot si message yow sëñ bi kon nii nga mel ah li mu jël sa temps nangam nangam dugg na fi waaye tamit xam nga xam du daal sa waaye gis nga loo oyof oyof Mm. yàlla da lay yëkkati rek loo def mu tekki loxo loo garaaw garaaw diis damaa yor ji nekk te diis ak yooyu yàlla suuf rek doo am résultat fenn fenn ay tappaleeg te doo mujj fenn macha allah ñun moom kuñ jëflanteel di nga sant yàlla moom macha allah wax dëgg yàlla ah, euh, mm-hmm. bi balaa ñuy mm-hmm. doo ma defal saraxu Sénégal comme Sénégal nga tur bi waaw sarax bi nga xam ne buñ koy def maanaam ay bakkan du dee mm-hmm. ay yàqu-yàqule du bari réew mi dina naat <laughs> dina am jàmm daal man Sénégal. Cheikh Sarr Sénégal du ko mën a joxe si télé. parce que damay ah, bañ ñu lay pirate. ah ngay ñu lay pirate. mais Sénégal boo koy bind. Ah. exemple. waaw ah, au lieu nga def Sénégal Sénégal nga def ah. <laughs> gars yi xamuñu lii koo binduloon Sénégal ci arabe du ko mos a bind barke Seydina Mohamed. nañ dem àggali ba beneen yoon Cheikh. Cheikh borom produit yu baax yi Tektal TV. gërëm nañ sëñ Fallou Mbacke Diop gërëm nañ ñi seetaan Tektal TV yëpp joge nañ ci tableau bi teg toog Cheikh produit yu baax yi facette bi moom ëppoon naa bañ a wane bu baax a baax a baax <laughs> mais Cheikh léegi euh, yan feebar laa bëgg na nga ñëwal ma ci ku euh, hémorroïde da nga koy faj. dama koy faj ba mu wér plaque ak at yu mën ci def ci yow. colopathie da nga koy faj. colopathie waa am naa garab bi. am nga garab am na garab yoo xam mais du feebar bu may faj lu baree bari. Mm-hmm. comme benn nit parce que du ko faral di tudd sax émission des fois da ngay faj dara sax fàtte ko. Hmm. même xam nga damay faj euh, jabet. te mosuma ko tudd yaakaar naa sa émission. ba gis nga bu ñu dagg sa tànk. Hmm. jox la rendez vous. Hmm. alxuraan moo la joxoon garab nga utiliser ko deux semaines boo demee dañ naan la ana feebar bi loo utiliser. duy caax te garab wolof laa lay jox. muy lekk duy caaxaan. Cheikh <laughs> yàlla daf ñoo daf ñoo may. bañ biir bu rëy nag bëgg mu jeex. waaw ñu am biir bu rëy góor ak jigéen yëpp am nañ fi ay produits garab yi nga xamante ne bu ko ci di telu naturel la ay garab wolof la. Mm. amul benn danger produit naturel à base des plantes. Mm. médicinal. Mm. Cheikh ñun yàlla daf ñu bëgg jeex ak jigéen ñi jeex bëgg a. yooyu yëpp macha allah am na fi. ay biir bu rëy. Hmm. bëñ buy metti bopp buy metti xam nga biir buy metti tànk yuy metti en général suñu papa yi wala suñu maam yi nga xam ne dañu tànk yuy metti ba ñu tëw a dox bu ma a joxee garab nga utiliser ko ni nga ko utiliser une semaine nga tàqoog tànkali kuy tànk yuy metti duy caaxaan ak foo mënti dem seex am na loo xamante ni hôpital du ko faj du ko faj Afrique la nekk Afrique lañ nekk man nag yàlla moo may xam-xam xel hmm. mu sajara xam hmm. xam boo xamante ne à base des la ak xam-xam boo xamante ne ilmul nujum la moo comme ni ñu doon wane si télé si table beeg nangam ak nangam ak nangam. Mm-hmm. macha allah daal te suñu at xëy na demeewul noonu waaye kuñ ci jëflanteel nga sant yàlla loolu moom mooy géej gi am na ndox géej gi am na ndox sa domaine ñi nga xamante ne wàllum kàttan lañ manqué mm-hmm. buñ jëlee samay garab gis ay mm-hmm. résultat ci wàllum kàttan moo xamante ne sa awra du jóg wala balaa moo jóg day yàgg wala boo seey ba pare pour mu jógaat day nekk problème ba pare day defar ndox la da ngay cib rek mëq jël ndax naan mu jàll macha allah bu mm. dee wàllum yokk awra lu ñuy diw matin mm. midi soir da ngay mm. te lu nag à base à base des plantes la ak ay jat yu muy àndal ak karité ah kon bokkoog jigéen ñi nga xam ne que dañuy yori produit rek naan damay yokk en ah, samay kii yow say mbir dafa rax yeneen di ba très bien Cheikh ah, xam-xam la ah. ba fees del kon moytu leen bu leen gën ko gis ci TikTok bi de yaakaar na wuute am na de mhm. ñun duñ ci tey yàlla may nañu xam-xam macha amul macha allah ñi sant yàlla bu baax nag. xëy na ñu bari ñi ñuy copier loolu parce que. Hmm. sant yàlla Cheikh gis nga loolu moo gën tuuti ci lu. Instagram hmm. ma ma xam. ma nit ki décanté wu mënatut am dara. ma décanté la génne sax ma jox la nga dem sant sant yàlla. Cheikh mais mais man bu paree moom ñu wéet nga fexe ma bàyyi ma <laughs> ma tàqali koog luyaas loolu moom. en tout cas Cheikh. jox la tur après. bu ñu moom. Hmm. billaahi wa du yàgg yow ma xam naa 2000 nangam ba léegi yaa ngi sëriñ ci. waaw su ma la joxee li ma la jox moom wax la li ma lay wax. waaw di nga xam ne ni boo utilisé une semaine nii nii. une semaine nii waaw. di nga xam ne. seex mosoo jëflanteeg sëriñ. barke Rasulullah dégg ngeen ko kon seex li wax léegi dama bëgg a fi tegtal nekk. dañ koo luye fi man dëkk dama koo luye fa tegtal boutique nekk dama koo luye fareen ak fareen dañ koo luye kon tàqali koog luyaas lan soxla. yore immeuble nag ay man ma ay. Cheikh ah. même boo yoree terrain boo xamante ni mënoo koo tabax sax. waaw am na lu ñuy bind ci alxuraan nga jël geenu nag. geenu nag jël saafara di ko si wisee. di ko ci wisee balaa moo mat un mois deux mois nga tabax foofu. ak ku mën a doon pour wax leen nag kenn musuma may tere bu ma jariñoo ci àddina nag ngeen bàyyi ko xel. tere bu ma jariñoo déedéet terrain moom dama ko ñëwut a jënd yenn yi sax parce que fii dem ba tabaxee rek parce que dëkk bi wóorul da nga yor kéet yu leer am ñeneen ñu yor kéet yu leer kenn xamul Afrique la nekk Sénégal daal mooy loolu am na xalaat bu ma doon xalaat ay temps naan taq ci kërug jàmbur far dem ba gis ne doon far na am sax ñoom nday say ñu ngi leen di ñaanal yàlla seen problème yi jeex mooy front de problème yooyu xeet boobu daal ak xaar yàlla ay Aliou Mbaye ak yooyu ak mooy loolu yéen Afrique daal la nekk mhm. mooy loolu kon daal dina taqale koog liaas léegi mhm. incha allah jeex na nga dugal moom fu saf seex euh, fan laa bëggoon dugg sax ci jabet wax nga ko mhm. tension tension tamit même chose la buñ la ko joxee macha allah nga yàlla. dañ koy faj ba mu wér amul ay calmants de seex. Mm-hmm. amul ay calmants faj ba mu wér. pelek bëñ buy metti mm-hmm. biir buy metti sonal la. leneen ak leneen tànk yu metti lool hépatite B non non. boobu doo ko faj waaw xawma ko. Mm-hmm. hépatite B xamaguma ko. yàlla mayaguma ko rhumatisme da nga koy faj. rhumatisme mooy tànk yu metti xeet yooyu noonu rek. wàllu arthrose yooyu loolu seex du problème. lu ma mën a faj boo ma woowee ne ma lii laa moo ma dala nangam ak nangam su ma ko mënee ma ne mën naa su ma ko du lépp laa mën du lépp nga mën mais lépp lu ma mën moom ma fi jëflantee da ko def ci njaay muy tas jaww jaww gaaw Cheikh loolu moom dañ koy foowee bañ nekkee xale macha allah loolu moom ay Bayra Njaay wala ay Bayra mbooloo sa place nii mm. am na loo xamante bu fekkee <laughs> bëgguma sax def waaye sa kër yi ma koy liggéeyee mm. mais du lépp bu fekkee Bayra place nii nga bëgg nii mm-hmm. am na loo xamante mi ngi sama oto ma def xam nga nàkk ñuy joxe si sarax bu buñu demee robi nit ki ba tey ba pare ñu ñëw nàkk yi ñu joxe noonu fa laay liggéeyee bayra place ak li muy àndal billaahi wallaahi du caaxaan te mi ci oto bi noonu loolu dama ko amoon ndeysaan suñu dëkk Masar Diop di nuyu waa Masar Diop ñëpp waa Touba lañ nag dëgg la hmm. waaye am nañ dëkku cosaan Masar Diop macha allah du nuyu Masar Diop la ban raison Eh, mi ngi nekk si région de Louga. région de Louga allah après Kébémer ah, côté yooyu. sa réew tam sama dëkk cosaan dem Kër Matar Diop. mi ngi noonu xam nga Kër Matar Diop wetu Sagata sant sant yàlla sëñ xam nga yàgg fi tawér ak sëñ Matar Xaar xam mm. mm. <laughs> rek Cheikh sant yàlla rab tamit yëpp da nga koy lijjanti rab mm. ku bëgg a jubóog sa borom kër ak wala koo xamante ni famem jubóowu ñoog ñu noonoog yëpp xam nga lu baree baree bari Cheikh xam-xam baa ngi fi de. da duy tax dafay duy naxaate. ak yokk awra ma waxaat. yorumay jinne. yoroo jinne. yoruma ko doo borom jinne yàlla boo amee jinne. Mm-hmm. fii boo fi ñëwee doo fekk lu ñàng. Mm-hmm. lu set. Mm-hmm. lu neex. dëgg. set jub. jub leeral jubal leeral. moo fi am. kafre. waaw ñoo gën a xeebu nag. mën nañoo génn sol suñu yëre yu oyof problème. xam xam si bopp lay nekk rek bi ñuy def émission yoon bu njëkk ak léegi vraiment dama gis ne day jëm kanam rek te yàlla na gën a jëm kanam man li ma bëgg mooy nit buy jëm kanam di jariñu di jariñe mhm. bëgguma tamit ngay jariñu di lore ma ngay jariñe doo jariñu yooyu laa bëgg quoi jëm kanam rek boo xam ne que mu leer kii feeñam mi ngi amal njariñ mhm. askan wi te sa feeñ mi ngi amal njariñ askan wi ndax euh, kii di Amadou Diawara Air France mhm. da fu mu toll da lay gërëm di leen invité ñii ñii ñoo baax ndax na ñu xam na ñuy sikk xam na ñoo xam ne que jàpp ku ku nit am na nee naa leen sëriñ si am na ñu mën a réussir communication nga ñëw dara manqué fa am na ñooy juum ci communication nga ñëw dara nekk fa kon ñaan yàlla mu nite leen fu njëriñ nekk rek mais du ma complice benn sëriñ mhm. amu benn sëriñ bu ma tënk ci lenn pour muy leer ku man di doon rek rafet njort laa dem rek lu ma nit wax mën naa ko gëm na gëm googu may gëm nag dina dem ba xaw maa dugal ci jeexi jaaxal te léegi gindiku naa bu baax a baax a baax a baax ngeen bàyyi xel bu baax Mhm. yu mel noonu amul benn sëriñ bu ma doonal complice yu bari feeñ na nag mais lu dul dëgg du yàgg te dëgg rek a ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax sëriñ bu wàcc ci D2 nag. Mhm. bëgg a yëkkati ko mën nga ci dara. sëriñ bu wàcc ci D2 maanaam deuxième division. comme ni nga koy waxee division waaw. muy sëriñ ak daanu yoratul siiwatul mënatul. wax naa la ko léegi si biir wax si biir émission bi. waaw sa tur la ñuy jël adat ko. waaw am nay raw xaan yu si nekk jël sa turu yaay adat ko am na lu muy nangam ak nangam. Mm. ñi mën a xam sa sarax lan la. Mm. ñu génneel la ko. jox la saafara. nga utiliser ko nga laal loo musta laal ci këru àdduna te da nga bàyyi sëriñ ya nga masoon jëflantal yépp ci këru àdduna. mais loolu est-ce que sëriñ si am oyof googu nangu ko loolu dina jafe daanu bi du rëy. Mm. yàlla boo rëyee moom. da ngay sonn rek da ngay sonn néeg sax buy lakk bagage yu diis yaa fay des. yooyu fi day dem yàlla loo gis am na zaahir am na baatin affaire yi en li ngay def na nekk lu naturel ci yow. jeex na loolu kese la waxtu bi def looy koy sant ak gërëm looy tàggoo bu dul tàggatoo sant la ñu ngi sant ñëpp ñëpp ñu may jëflanteel. Mhm. moo xam ci garab yi ma leen di faj ñuy wér wala yenn feebar yu ñu am. Mhm. wala ci produit yi macha yu naturel yi ñu leen di defal. ñuy mhm. wala ci ñaan wala. ñu baree bari maanaam si wàllu àdduna macha allah daal. Mm. di nuyu ñëpp moo xam ku nekk Espagne Italie France Amérique sama client yi nekk si diaspora am na laysaan sa sa benn xarit boo xam ma boole woon ak moom. Mm. su ma juumul Japon Japon. ñëw na Sénégal ñëw na fàtte naa tur bi daal très bien. Daawur xëy na bëgguma wax turam waaye. Ah, nee na ma yaa ma ba ne sax a may toog ne ma Cheikh ma ma jox sa numéro moo ñu boole nangam nangam ñu jëflante ma envoyé kay bagage am ba Japon mu jot ci. utiliser ñëw Sénégal. mu ne ma nag dina ma seet seeg yooyu waaye xëy na moom. xam nga sant sant yàlla Cheikh. Hmm. affaire yi méttiwul boo hmm. di nuyu ñëpp di nuyu sama soxna. macha allah di la nuyu ak di nuyu ñi may jàppale si liggéey bi. Mm. sama beneen équipe bi nga xam ne ñoo wàllum produit beeg. maanaam macha allah kii tamit damay gis ne chaque jour daf lay estati mbay. mbay comédien mbay ndeysaan la trop. bërëb bii nii. Mm. fii laa ko aaloon mu dëkk fi daanaka un un an. un an ndeysaan fii dama bi ma tëj ko. nga tëj ko. xëy na bëgguma sax. nañ kii loolu xam nga. waaw waaw mais sama xam nga waaye. fonk na xam naa am nañ fu ñu jaar seex. du question da ngay def dara. wax ko. man xam naa. mbay bi ñu tase. Mm. dama ko seetaan ci télé. Mm. ak waxtu bi nodd bi bu fekk la ma amut yàlla naa dee léegi fi ma toog. ma seetaan mu ne góor mu moromu góor musuñ koo may. un million mm. bu fekk li ma amul yàlla bu nodd bi yàlla bu ma soob. gëm naa la ma lijjanti numéro am sama benn xarit ba doon liggéey deeti bu tudd Ndey. Ndeya nekkatu fa léegi. aloo allo nangam numéro diw sangam laa bëggoon mu ne ma après xaaral ma laaj. après nag mu laaj ko yooyu mu envoyé ma ko ma woo ko mu ne ko man la diw naa ma naa affaire yooyu noonu xam nga lu gudd la quoi. comprendre nga. après nit dina mos a may un million. <laughs> non Cheikh <laughs> allahu akbar ma dem yëkkati un million may ko ko. ndeysaan mi nekk ay jafe-jafe xanaa sax ndeysaan bëgguma di tudd wala ah, question dara la ñun gëmuñu yooyu. Hmm. Cheikh. mais li nga dégg naa moom mu témoin ko boppam moo tax. wax waaw témoin na ko fii man maa ko joxoon mu dëkk fi an lu teg man maa fay luwaas bi. agence bi ki ko yor mi ngi fii ni dama fay un an bàyyi noonu après man maa ngi dëkk asale mais fi def ma fi dara ma defal lépp mu fi am clim bi télé yeeg lépp a ngi fi woon ak hmm. lal bi mu nekk fi après ba keroog yàlla bi muy génn tamit ma xam pour mu génn tamit hmm. bëgguma mu koy bàyyi ma yëkkati nangam si somme mu hmm. avancé beneen néeg ak caution yooyu ma jox ko ko mu gé mu dem feneen macha allah moom daal gërëm na la xam naa. waaye àdduna moom hmm. dafa am ñoo xamante ne day jaar day jaar affaire dafa am ñoo xamante ne maam dañuy jaar sa loxo. am loo xamante ne say eh, yàlla moo tudd loolu. moo tudd loolu xam nga donte nit am na ñu xam lool ñu ma alal téeméeri junne musuñu ko defal loolu. ndeysaan xam naa. des fois affaire bi ci xol la seex. ci xol la ak yëg yëg te et puis. Ah. comme ni ma leen ko waxee rek man li ma bëgg mooy ku mën a defal nit dara ci man ko defal parce que loo ko defal rek euh, moo yàlla nga ko defal daal. Mm-hmm. li nga def lu ci nit ñi mën di wax yow nag ngir yàlla tax rek façon yu mel noonu. Mhm. comprendre nga moom bu soobee yàlla nii may dundee liggéey bii. duma mhm. ko fooyee duma ko kafe kuy def résultat teg ko ci yoon. Mhm. dañuy dem rek. parce que man du ma la triané du la lépp du ma la ñaan duma la. teg loo duma du dugg ci kii. ànd ak nit ki ci dëgg yéen la jàmm nga yéen ma jàmm ñu ànd yéen askanu jàmm muy jàmm ak jàmm. kon incha naar Dubaay yi gërëm leen. waa du nuyu waa Dubaay ñëpp. Mm-hmm. di nuyu Mahmoud Ndeysaan mm-hmm. sama chauffeur bi Mahmoud dama perte numéro am. bokkut ak mm-hmm. Mahmoud si bokkut ak sama ah, cousin bi ñu àndaloon ah, bokkut ak Mahmoud bi ñu àndaloon demaale Dubaay bokkut ak beneen Mahmoud la boo xamante ne mi ngi Dubaay. macha allah Cheikh Omar moom mi ngi ah, Sénégal nii du nuyu Ndeysaan benn imam boo xam mi ngi Dubaay mais di nuyu ña fa nekk ñëpp macha allah wax dëgg yàlla. ak fi ñu nekk fépp ci àdduna bi ñuy jëflanteel it. moo xam nga ay Gabon. xam Suisse uh-huh. Angleterre Hollande ñu ngi fépp macha allah xam nga ñu ngi fépp fépp fépp macha allah macha allah. wax dëgg yàlla kon Dubaay nañu xaar dinañ ak seex ci kaw asamaan. incha allah rabbi uh-huh. dem Europe dem uh, Asie. Uh-huh. dem Gabon dem Bénin. bene sax dinañ fa dem def émission ak Barça ak fépp ah. xewal dikk loraange gërëm nga madame Conté madame gërëm moom laa ñàkk gërëm. waaw gërëm nga ko des fàttewu kenn. Tektal TV nga nekk di nuyu sama waa kër waa Touba. sama papa sama yaay sama tante samay rak. ak sama mag. macha allah Amar Kontey ak hmm. euh, ñëpp daal ñu may béggee samay am di jàmm ñëpp liñ naan ku lim juum waaye ku lim doo juum waaye danga nga dul matal hmm. ñi ma xam ñëpp mënuma leen lim waaw macha allah daal mi ngi noonu xewal dikk loolu yoon bu mujj ci biir émission bi numéro Cheikh borom produit yu baax yi 78 397 65 93 78 397 65 93 Cheikh borom produit yu baax yi nekk ci asalem ak euh, foire ak euh, Dubaay ak fépp whatsapp bi mi ngi noonu nga dir ko sax lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla ma xam tëlew dara te mën na lépp équipe technique bi àndaloon balaa boobu gërëm nañ waa Allemagne Ousseynou Ly Allemagne Cologne euh, Pierre Hussard Allemagne Cologne Mami d'enfant France Espagne France Serval Espagne Malick Jité Grèce gërëm nañ ñi bëgg tegtal bu baax a baax a baax a baax nga xam duñ ko Amadou Diawara Air France France bëgg seex bu baax a baax a baax gërëm nañ ñëpp daal aji savané Gambien fële ca Angleterre xewal dikk loraange dak gërëm nañ sëñ Fallou mbake Diop gërëm nañ soxna May Diop euh, soxna Fat Jaxate écteng bi na andoon Mohamed docteur Wade bu Casamance nekk ci Bayma Samba Diop nekk ci xarmat euh, nekk ci Petit Sow Gaw Sow nekk ci Tektal TV télé tollu ko fii abonné leen kum neex nga abonné kum neex bul abonné njëriñ rek mhm. leen yor seex borom produit yu baax yi mhm. ak beneen facette xew dikk loraange dak